Salut les amis de Sport TV, merci encore le gars de la confiance renouvelée. Hein. Merci louer des likes, merci louer des abonnés, merci également gars des bails et des commentaires. Un plaisir renouvelé. Chaque fois de partager avec une information. Bok Sénégalais, il fait pour le Monténégro, 14 régions du Sénégal. Rokhoukhari, Gorgokhari, Ninglen, Djadjefel. Nous sommes également à l'hôpital et sécurité de février. Nous sommes en train de faire des gam, nous sommes en train de faire des aussi erreur judiciaire. À Guinée, nous sommes en train de de des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. On avance ensemble dans la magie des Sport TV. L'actualité en continue gars actualité ñu fas yéene waxtaanee Aliou Cissé nan la fas utiliser trio bu Pape Mat Pape Ismaël Sarr ak kii di Iliman Ndiaye ak Sadio Kay fik Mané est-ce que Aliou Cissé dina euh, utiliser ni la leen utiliser ak ban gis-gis lañ ci am loolu lañ fas yéene waxtaanee mais d'abord gars yi mo <laughs> moo fàttali ko jamono ji ñan ñu doon àbb téléphone muy goor du jigen ana ñu doon àbb téléphone <laughs> ak jamono yi gars yi gars yi kat moo fi yoroon genre téléphone yi aussi quoi tay pour mbal ak gars yi un peu détendre l'ambiance parce que l'un des te gars yi lundi duñu mën a quoi dañuy tayal ñu bëri ki nga xamné également la moom donc euh, ki di Usain Bolt ah, Usain Bolt également benn match bois waa UNICEF organisé won dafa daal di dugal ba mu dugalee mu daal di ñëw imité ñëw daal di maanaam li nga xam moy célébration bi nga xamné mom la ki di Marcus Rashford def né la Marcus Rashford mom bu doon ci benn distance bu 7 mètres mun na ko raw waye bu du 7 mètres mënu tu raw ki nga xam Usain Bolt gars yi aussi nga ko fatali ah, ñi nga xamné déposé won nañ pour am carte d'identité carte électeur yi également mun ngeen dem léegi gars yi ba le premier du 1er ba le 15 juin xol si gox yi ngeen nekkoon

mu daal di wàcc liggéey ab leucémie la amoon 86 ans maanaam juróom-ñetti fukki at ak eh, juróom-benn la daal mais également félicitations à Bouli Junior parce que même bu fekkee ne Wydad Al Ahly moo ko ci finale Ligue des champions bi ils n'ont pas démérité et Bouli Junior aussi il a fait une saison exceptionnelle Moi, mi nga xam ne championnat bi jeexagul mais Ligue des champions bi bon ñàkk nañ ko une félicitations félicitations également à Chérif Ndiaye et aussi à Pape Alioune Ndiaye bi nga xam ne euh, qualifié nañ ñi Ligue Europa Conférence League ah donc ñu leen félicitations avec son équipe

ah ci li mooy centre formation Barça bi centre formation euh, Real bi seen compétition ñoo daje donc Real moo ko dóor ñaari match boo ko cumulé Real moo ko dóor 3 à 0 donc donc le Real qui élimine donc le euh, FC Barcelone ki nga xam ne également mooy Endrick Endrick démb dugalaat na avec son club euh, du côté du Brésil moom nag 2024 la war a ñëw du côté du Real Madrid booy bi le gars yi ne c'est le futur crack hein, comme ni ñu ko doon waxee ci Vinicius Junior noonu lañ ko koy waxee jamono ji ci Endrick li nga xam nag mooy wàllum Ligue des Champions góol yi ëpp lu ñu def ay clean sheet Onana moo nekk ci kaw topp ci Ederson topp ci Courtois topp ci Mignolet gis ngeen na mi nga am huit clean sheet Top ci Ederson bu Manchester euh, City Thibaut Courtois bu Real Madrid également Mignolet Kevin De Bruyne moo nekk meilleur passeur ci Ligue des Champions bi am 7 passes Vinicius Junior a am 6 passes Federico Di Marco am 5 passes mom ak Joao Cancelo Joao Cancelo bi nga xam ne gars yi ñu ngi ko àlloon euh, ñi di wa Bayern mais dafay dellu fi Arsenal mo ci nek ki di également meilleur buteur euh, Erling Bro Alon terme buteur largement largement largement devant moo donc Mohamed Salah mi am 8 buts top ci Kylian Mbappé mi am 7 Vinicius Junior ak Joao Mario Vinicius tamit 7 la am donc Joao Mario mi 6 buts meilleur également équipe bien plus de buts ñi ëpp luñ duggal ci ay buts ñi di Manchester City ñu ëpp am nañ 32 top ci Real Madrid top ci Benfica Napoli Bayern Munich également donc Bayern Munich de Sadio Mane malheureusement non ñoom eu téla tok di jëm ci également gars yi nga xam moy Manchester City ci Ligue des Champions gars ils ont eu zéro défaite manam kenn dóoru leen ben donc ñom nak loolu 2008 la gëjoon am ak wa Manchester euh, United donc ils ont joué la compétition sans avoir de défaite les citizens de Pep Guardiola justement Pep Guardiola bi nga xam gars xol parcours am ci fukki at ak juróom rek ah, fukki at ak juróom 15 ans nga xol parcours am a mu jël ci ay titres ah, jël na fi trois fois Ligue des Champions Il ah, jël fi également li nga xam moy Premier League jël fi Bundesliga jël fi également Super Coupe jël fi. coupe d'Allemagne Angleterre entre autres moom mi nga xam aussi tàgg na ki nga xam mooy Onana nee na Onana oh def ci passe et tout nee fa nekk woon ah, dina xaw a metti ci waa Inter mais nee moom li fa nekk moo leen xawoon sonal ñoom donc dafa nekk góol boo xam ne balle au pied daf ci baax trop trop trop moom chaque fois day gis joueur bi démarqué bu daal koy passe du côté de Liverpool gannaaw bi nga xam ne recruter nañ kii di McAllister teewul ba pare Liverpool yeneen ñaari milieu de terrain mais aussi benn défenseur défenseur central boo xam nag gaucher la ñu soxla ñoom jamono ji loolu mooy seen piste ils ont besoin d'un défenseur central mais gauche Marcelo Gallardo actuellement nag nee nañ donc Pablo Longoria dafa dem ba euh, xam mooy donc euh, seeti ko ak également euh, donc kiom collaborateur pour waxtaan ak moom mu daal di mën a ñëw yor ñi nga xam ne mooy donc waa Marseille la légende Marcelo Gallardo ki nga xam ne moy Al Hilal gars yi nee nañ jamono ji nag ñoom ñi nga ca France pour daal di négocier ak Neymar ak aussi Paris Saint-Germain parce que dañu bëgg recruter Neymar Buñ ñu ko recruter nak ñu koy proposer salaire bu 350 millions sur 3 ans mais nak est ce que Neymar day dem ou tout en tout cas Paris nee na moom ku ko fay xaalis bu jour bi d'accord ñom paré nañ pour jaay Neymar ki nga xam mooy nag Christensen Christensen actuellement nak gaay yi moom gars yi doon wax naan Barça da koy jaay du jaay Barça nee na ko da fay compter ci mom donc c'est un cadre dans l'équipe mom ak ki nga xam ne nag gars yi moom mooy donc euh, seen yeneen défenseurs yi fa nek notamment gaay yi nak euh, mom ak Xabi euh, Alonso ki plutôt Alonso ñom ñaar dal fassé wu ñu leen jaay benn yoon ki nga xam ne aussi nak mom moy donc ki di McTominay McTominay nak actuellement wax na leen ko ñi di wa Newcastle ñi ngi insister lool lool pour être recruté. recruter McTominay mi nga xam temps de jeu de xaw du côté de Manchester United on va parler maintenant de Aliou El Tactico Aliou El Tactico le gars actuellement comme on dit hein, donc trop trop de bien nuit parfois mais dans ce contexte trop de bien ne peut pas nuire madame. am am bu parfois mën na la jural ay gàllankoor wala nga gis sa bopp et tout donc aujourd'hui El Tactico dafa am équipe boo xam ne macha allah sur le plan offensif surtout sur le plan offensif on a vu que le Sénégal s'est amélioré sur certains points maintenant nag problème mooy on a vu que Aliou Cissé match bi mujjee donc sans Sadio Mané gis nañ Iliman Ndiaye joué na ak ki donc ismaël Sarr ak Boulaye Dia en attaque. Maintenant, ben moment aussi, Sadio Mané et Iliman Diaye jouent. Et pour la première fois aussi, on pourrait avoir le trio, hein, Bouy Sadio Mané, Iliman Diaye et qui dit Ismaël Sarr sur le même terrain maintenant là, kan la est-ce qu'Al va avoir la possibilité classé les ñoom ak nan lañ leen classé étant donné que Iliman aujourd'hui il est devenu un titulaire indiscutable Iliman Diaye fi mu ne suñu attaque bi yépp moom ak Boulaye Dia ak euh, ki di donc Habib Diallo mënoo dindi kenn teg ki te dugaloo leen ñoom parce que ils sont les plus performants même par rapport à Sadio Mané Iliman Diaye a fait une saison beaucoup plus accomplie maintenant Iliman Diaye, avec bien entendu l'accompagnement de Sadio Mané ak aussi ki nga xam ne donc Ismaïla Sarr nan la ko Aliou du utiliser est-ce que va utiliser Iliman Diaye sur l'aile voilà Alistair utiliser Iliman Diaye devant le milieu de terrain. Voilà Alistair utiliser Iliman Diaye à la pointe de l'attaque. C'est ça la grande interrogation qu'on est en train de se poser. En sachant que, avec Sadio Mane, vous connaissez Ken Kredjil LB, Ken Kredjil LB. avec Ismaël Sarr kenn ki day jël LB kenn ki jël LB mais nous, nous bu ñu ci terrain comment Aliou Cissé doit jouer la question n'est pas Iliman nan les jouer parce que Iliman comme on le dit il est beaucoup plus à l'aise derrière l'attaquant c'est un joueur altruiste qui sait jouer entre les lignes D'accord Il joue dans les interlignes. Mais aussi, quand tu as un Sadio Mane, actuellement, mon poste de prédilection, c'est à gauche. Qui donc qui dit Ismaël euh, Sarr aussi, il joue également sur le côté droit. Donc, c'est une poste là. À moins que aussi à fait le choix de jouer devant le milieu de terrain, qui dit Ilman joue au côté, ou Ismaël Sarr aussi joue au côté, ça aussi c'est une autre question. Ismaël Sarr, aussi, c'est un des hommes forts de Est-ce qu'à un également, Day Ken Ban wala book da leen joué ñoom ñett en sachant que atout offensif la boo dañ ko wara exploiter pour man ñom ñett buñu mëne jouer ce serait extraordinaire parce que offensivement le Sénégal aura des atouts buñu xol statistique ci coupe du monde par exemple Iliman Ndiaye avec les grandes équipes notamment aussi mon grandes équipes mooy équipe qualifiée coupe du monde donc lui c'est 73 de passes réussies ah, minimum dina 5 dribbles il y a 4 da koy réussir ki nga xamné donc qui également di Ismaël Sarr Ismaël Sarr c'est quelqu'un qui aime aller vers les duels maanaam dafa bëgg dafa nek ko xamné ne dafa bëgg di dem duel défenseurs pour créer faute am ay penalty et tout donc ñaar ñoo

4-4-2 bon, xamné c'était un 4-4-2 compact ñu am ñaari milieu de terrain mu qui ki nga xam mooy Nampalys Mendy ak ki di Pape Alassane Gueye ñoo joué woon ki nga xamné mo moo Pape Matar Sarr nekkoon ailier droit défensif ki nga xamné mo moo donc Ismaël Sarr nekk ci de côté bi Sadio Mané également était donc un jour Sadio Mané plutôt nekkoon ci côté bi donc il y avait aussi cette possibilité ñu gissone également Aliou Cissé boobu nous dafa doon jouer avec un double pivot mon école, qui est xam ne donc Nampalis ak qui dit donc le euh, euh, Pape Alassane en sachant que donc loolu il peut jouer avec un Idrissa Gana et un Pape Alassane Gueye parce que nous avons a forme euh, par rapport à Nampalis mais mais vous 4-4-2 comment Aliou Cissé va s'organiser est-ce qu'il va faire jouer Sadio Mané comme encore une fois je le dis comme nous mu joué Mouma ak Iliman kii Ismaël parce que Aliou Cissé gis depuis quelque temps ñaari ñiy joué ci aile da leen di intérieur à dire que ils sont sur l'aile mais ils repiquent vers parfois parfois Sadio Mané bu nekkee ci côté gauche bi c'est lui qui joue le rôle de meneur gauche bu nekkee ci contre beneen bi passé dit pas Pape Matar Sarr joue le rôle de meneur droit donc aujourd'hui également match bi dina tax ñu xam Aliou Cissé ndax day joué Habib Diallo wala des joué loo ki nga xam donc trio maintenant en fonction de disposition bi muy teg ni dispositif bi muy teg dinañ mën a xam aussi dans le futur bu fekkee ne kii di Boulaye Boulaye Dia dellu su ne nekk tutelle indiscutable dans le système de alucisé nan la alucisé n'a nar utiliser li nga xam ne mooy ñett bi donc aujourd'hui la grande question du cadre nii la la utiliser néew utiliser mooy est-ce que Aliou dina leen dugal ñoom ñett bu leen dugalee ñoom ñett ba pare nan la leen di positionner nan la leen di utiliser après nag à partir de là on pourra savoir aujourd'hui ban idée lañ mën a am ci future équipe bi nga xam ne Aliou moom bëgg a teg parce que moom nee na fi mu ne nii lay waaj a préparer ñu yóbbu Coupe d'Afrique et je pense pense que ne am trois hommes forts yo muy Sadio di Ismaïla di également Iliman Ndiaye te mu leer na ni du ku nek warul mën tok ban nan la utiliser donc quel système il va pouvoir les utiliser sans pour autant déséquilibrer milieu de terrain avec défense am na nag moy nek mooy nekk ab laaj dugguma ci détail damay dugg ni pour jox quelques détails pour war aujourd'hui à aujourd'hui Aliou Cissé et également dans l'équation de voir si day dougal ñetti euh, joueur bi wala boog ñaañi lay jouer ou pas on verra en tout cas gars yeen joxe leen ci seen on va faire également une vidéo analyser techniquement tactiquement nan lañ ko gisee ñu mais d'abord dañuy am seen xalaat yéen jaa ngeen